ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا ahousubillahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim bokki jullit yi ñuy seetaan asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yàlla dogal nañu dellusiwaat ci béréb yi nga xamee ne moo di 2STV fas yéene jëm ci wàllu waxtaan waxtaan wi nag fa tabaarakallaahu li ko waral mooy waxtaane nit ku baax waxtaane nitu yàlla damay faral di wax lu baree bari ne léeg-léeg alxuraan sax dafa naan fàttalikul ci téere nangam waskur fil kitaab bi nangam moo xam Ibrahima la wala Maryama la wala Ismaayila la xëy na loola lan ciy jublu mooy nga mën a def royiwaat defaat benn arrière xoolaat la fa xewoon moo tax léeg nit yàlla yu baax yi ñu ci tànn ñenn di waxtaan ak ñoom di ci waxtaan ci ñoom rawatina ku mel ne góor gu baax gi ñuy bëgg a waxtaanee mu di sëriñ Abbas Sall bu luga nga xam ne wilaayaam ak mayam ak mandoom ak nangoo jaamu yàllaam lu nit gàtt gàtt gàtt gàtt xel war ko mën a nangul loolu loolu moom loolu moom lu nit gàtt gàtt xel war ko nangul moom la suuf yanke la woon boo xam ne bii kenn wérantiwul fam ca tolloon loolu nag moo tax ñu dalal fi kenn kooku mën nañu wax ne ku nekkoon ci keppaaram la xamoon ko loolu te miinoon ko mu di professeur Insa Seck deesul wax nag ne guléet ndax du wii yoon rek la fi ñëw waxtaane ci kilifa googu la waaye daañu waxtaan itam ci yeneen tomb ndax gannaaw émission la loolu lépp daf ci duggaale ci wàllu lislaam waaye sëriñ Abbas daanaka point focal bi moom mooy moom sëriñ bi ñu ngi lay nuyu dina jox kàddu bi nga tàmbali ñu dugg ci waxtaan yi. salaamaaleykum wa rahmatullahi alaaji Oustaz Maodo ñu ngi lay nuyu di la delloo nuyo bi di la ziara mm-hmm. di ñaan yàlla defal jàmm waa kër gi def ko ci kër gi def ko ci eh, ñi jiite kër gi ak ñi liggéey ci kër gi ñëpp mm-hmm. den yàlla dooleel leen ba rôle bi ngeen di taxawee ci société bi ak ci diini ji mm-hmm. ngeen gën ko mën a taxawee di la wax ni ci turu sëriñ bi Cheikh docteur Mouhamadou Mansour Sall ñu ngi leen nuyu mu togg ma man nag nuyoo xas ni ma naa la ko jot li ñu ngi leen nuyu euh, bi yëpp ñu ngi leen di nuyu ñuy nuyu jullit ñëpp ñuy seetaan 2STV ci fépp ci àdduna bi ci biir Sénégal ak ci bitim réew di amet kontaan ci dellu siwaat ci kër gi di jàkkaarloo ak yéen incha allah pour waxtaane li nga xam ne nii moom moom nga tudd léegi ci ci ci commencement bi. incha allah daañu ci dikk léegi sax ci Serigne Abbas waaye dañuy waxtaanaale ci àddina bi tuuti rek ci wàllu lislaam euh, dafa am lu ñuy tuddee monde islamique. maanaam boo ko dégloo rek ñaar yi lu ci ëpp ëpp ay réew arab la ñu doon. wala réewi naar yi wala proche orient wala moyen orient. maanaam Israël euh, ma génne ci Israël waaye dafa dugg ci seen biir. fu mel ne Palestine fu mel ne Jordanie fu mel ne Irak fu mel ne Syrie Turquie. yooyu noonu ba ngay ñëwaat Makka jëm ca kaw. Euh, maanaam monde islam bi fu mu toll ndax li boo déggee man la fu mu mooy jaxase gi leen di jaxase ah. ba ñuy fénqaloo ci seen biir ah. ban xal ban ban solution ci war a ne Saad Maodo la moo xam ne mu soxal bépp jullit la mhm. maanaam monde islamique surtout monde arabe ndax boo ne monde islamique day ñëw ba ci nun mhm. waaye boo ne monde arabe nag mhm. léegi loolu arabe yi rek la euh, monde arabe Euh, en particulier li ñuy dund lu metti la guerre yaa ngi fu nekk jarul kenn di ko lim ñi ngi koy gis bis mu nekk ah, euh, demal Syrie demal Yemen Iraq demal Iraq Liban sax jàmmati na ko fenn fu nekk euh, ña ngi fay taal ab taal te lépp lépp boo ko seetloo benn observateur ni moom li mu seetlu mooy euh, ndekete ger yi am yëpp yëpp yëpp foyer de tension yi am yëpp ci monde ci monde islamique la fenn fu nekk islam am na am na am na cër ci mbir ma muy loo xam ne ni ma ko waxee lu métti ab jullit la wala lu ko war a métti la bokk léegi nag da tudd loo xam ne lii ah lu doy waar la muy solution waaw solution de moom bu ñu nee jullit wutal solution defe naa ni li gën ci façon wut solution pour ab jullit mooy mu dellu ci téere yàlla ndax téere bi yàlla daf ko wàccee ci àdduna bi waxuma ndax kuy ab jullit rekk di ci seet nooy dunde waaye jullit ñi mën nañ cee seet nu ñuy dunde ñi dul jullit mën nañ cee seet nu ñuy dunde euh, seen diggante ak jullit ñi diggante jullit ñi ak ñi dul jullit ñi waaye surtout diggante jullit ak morom lii xew. ci digg maanaam téere bi waxul ak jullit yi kese. waxul ak jullit ñi wa maa arsalnaaka illaa kaafatan linnaas bashiran wa nadiran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, risalaam du risala maanaam euh, du risala risalatu islam kese risalatu insaniya la l'humanité adduna bi yëpp adduna bi yëpp la parce que soo ñëwee bëgg jël benn groupe boo xam ne li ñuy tudd ay julli bëgg leen a defar ba ñu mel ni nga bëgg te boolewoo ci àdduna bi du dox il faut nga am yaatal moo tax gis nga li ñuy wax mondialisation yi ma xamul yi mais universalité de l'islam moo jiite loolu islam dafa ñëw pour régler monde bi yëpp kenn ku ne mu teg la sa place yow mi dul jullit doo jullit amul problème nekkal sa place yow mi jullit jullit nga amul problème nekkal sa place mhm. kenn ku ne xam àq keneen ki kenn ku ne jox respect keneen ki jox bi nga xam ni bi ma war loolu moo tax nga gis ci alquran yaa ayyuhan naas yi di ci bëri mhm. moo ne mënu ne wax rek yaa ayyuhal ladina amanu yaa ayyuha naasu taqu rabbakum gis nga dafa dellu ci martabatu rububiya am na uluhiya am na rububiya mu bàyyi fële uluhiya ndax foofu fi la jaamu yàlla ne waaye mu ñëw ci rububiya fi nga xam ne fi la nu yàlla bind nun ñëpp nu nekk ay nit yaa ayyuha naasu inaa xalaqnaakum min dakarin wa unsa dellu ci cosaanu doomu aadama alquran téere la boo xam ne dafa ñëw Oustaz Maodo pour l'humanité nun nangu ko ñu bañ ko nangu ñeneen bañ ko ñeneen bañ ko nangu ñu nangu ko dafa ñëw pour loolu léegi nag lii xew du dara lu muy wan alquran ganaaw wan alquran gannaaw ak defe ni doomu aadama defe ni mën na am intérêt feneen fu ëpp la leneen la ko alquran leneen la ko diineem di jox maanaam bu toppee diineem intérêt yi muy am hmm. doomu aadama dafa dem ba bémpen mooy gisat gisam neexatul mu defe ni bu fi bàyyee li ko al alquran wax def leneen mën na am foofu intérêt yu ëpp yooyu hmm. fekk loolu loolu amul wa man arada an dicri yàlla nee na boo fi bàyyee li ma wax fa inna lahu maishatan dankan dank c'est-à-dire da ngay nekk ci xat xatu àddina maanaam doo am jàmm doo am satisfaction morale satisfaction intérieure doo ko am doo am quiétude da ngay ne ci maanaam comme comme bur buy daw yàllaa ko wax wa man arada an dicri fa inna lahu maishatan dankan loolu ci àddina yowma alxiyaama wa naxshuruhu yowma alxiyaamati ama mhm. su ko defee fii ak ñu ngi fii bàyyi yàlla dafa am oustaz Maodo bu bu fekkonte ni may nañ ñu wax ko di di wax ko di wax sunu termes yi nii waxantee suñu bopp yàlla dafa am fayda li mu wax buñ ko deful dara du xew du wàccee buggal du du renverser suuf si du fi indi ak loolu daf koy bàyyi waaye kenn du am jàmm kenn du am jàmm mhm. blocage yi mooy am boo xam ni kenn du ko débloqué ndaxte loolu lépp ci suñu borom subhanahu wa taala la jógee il faut nit ñi bu ñu bëggee suñu mbokki arab yi ak julli ñi yëpp ci àdduna bi suñ bëggee jàmm am bu ñu ragal islam nañu wax nañ wax nañ nañu ni lu islam wax uh-huh. islaam li mu wax mooy jàppeel sa mbokk jullit comme yow man waxuma sax moom sa mbokk arab waaye yow xanaa boo gëmul itam jullit gi nga war a gëm gënum arabisme boo gëmul jullit gi itam moo nga gëm boog arabism gi ngeen bokk uh-huh. ba gëm ko mu wax leen ni jàppeel sa mbokk jàppeel sa mbokk comme sa mbokk sa bopp bul ko def mukk loo xam ne lii lu koy lor la bul wax ci moom loo xam ne lii lu koy lor la sàmmal wëllëre sa diggante ak moom mais lii buñ ko defoon jàmm jàmm jàmm am su nit ñëwee ni la euh, Oustaz Maodo euh, euh, sëñ Issa dafa ni la nangam ak ki nangam ak ki nangam ak ki nangam nga ni ha mu ne nga ne ma ne nga ne waaw nga ne ko toogal daal di may woo ma ñëw in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu fatabayyanu an xaw man bi jahalatin lii xew lépp du dara lu muy ay nit ñooy tegal jullit ñi ay plan neen su ngeen ko defee lii la am nañu ay preuve yu baree bare ci loolu mhm. yu baree baree bare ci loolu maanaam guerre golf bi jëkkoon a am mhm. muy diggante diggante Saddam Hussein ak ak ak ak Irak mhm. waaj nañ ko ay ak Kuwait ah, déedéet ak Irak ak Iran en ah, en quatre Iran Iran Irak waaw d'accord waa waaj nañ ko ay at plan yi tëral ko ay at. pour war koo doxal ay nit ñu yàlla baaxee ci euh, euh, ci ci ci ci réewu arab yi surtout ci arabie saoudite lànk loolu lànk loolu. ba ñu lànkee loolu dem di dem ba yàgg waaye adduna ñëw ay pression yoo xam ne kenn Oustaz Maodo ma wax la leen. te kat boobu américain yi irakien lañ. ma wax la leen Oustaz Maodo guerre yi du suñuy guerre de. amul benn guerre bu ne ci monde islamique boo xam ne bi jullit ñi ñoo ko ñoo ko taal. guerre bu ci nekk dañ naan ne nii la nii la war a demee résultat yi nii la bu ko defee yow jullit bi nga daal di jóg jël sa ngànnaay dal ci sa kaw mbokku jullit Irak ak Irak ak Iran li ñuy wax ni moo déclenché guerre bi châtel arabe maanaam madix boobu nekk di diggante foofu nga xam ne fi la fi la bateau yi di jaar di génn golfe bi mhm. mais foofu dañu amoon ay accords yu jàppale woon Iran ak Irak Uh-huh. loo xam ni ay at yu bari jàll na pourquoi un certain jour rek nga ñëw di dute ci loolu ba nar cee taal guerre uh-huh. influence ak Occident yi la rek. waaw te loolu ba mu xewee ba ñu waxee Saddam ba wax ko ni ko nii ngay def nii ngay def nii nga dañ la jàppale adduna bi war laa jàppale waaw ba ngeen ko jàppalee ba pare ba mu pare lu ngeen ko def ngeen ñëw dal ci kaw moom rek. waaw ah, te moom lañ njëkkoon a jàppale. ci te xoolal loolee xew ci Saddam moo moo xew ci keneen maanaam ñun ñëpp ay ay ay ay kii la ñu ñun ñu tuddee. أي أهداف يعني خيالية أو أو أو aw أو aw wahmiya mhm. maanaam c'est des c'est des c'est des cibles potentielles mhm. lé fenn fu ci ne kenn ku ci ne bul defee ne bu ñuy door diw wala bu ñuy wax ci diw nga naan diw la du yow moom yow la yow en tant que musulman yéen ñëpp yéen a bokk islam noonu la bëggee woon yonente bi sallallahu alayhi wa loolu la bëggee woon nit ñi dégg ko mathalul mumini lil mumin kal bunyan mhm. loolu la wax jullit ak moroomum jullitam nañu mel na benn tabax Oustaz Maodo birig bi ci suuf du ni man du ma féete suuf birig bi ci kaw eh, nga yow nga féete kaw bi ci digg bi déedéet kenn ku nekk fa nga toll jouer rôle ba nga war a jouer sàmmal jàppoo gi mathalul mu'min lil mu'min ka mathal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan uh-huh. mu bi wax ci beneen xadis bi ni ka mathalil jasadil waaxid foofu nag la ma gën a yéeme xoolal yaram mu ni kenn jullit ñi jullit ñi kenn ku ne da nga mel na benn membre ci kooru yaram bu ci bu benn bu lexoo mettee bopp yëg ko tànk yëg ko euh, euh, biir yëg ko nopp yëg ko bët yëg ko ñëpp yëg ko yonent bi li mu wax amul benn philosophe wala benn jàngalekat bu ko bu ko bu ko bu ma sa wax lu mel noonu xoolal yëg-yëg boobu soo amoon oustaz Maodo bu amoon rek ni julli ñi dañuy yëg ni ñoom ñëpp benn membre lañ ci kooru islam. maanaam euh, ñëpp ñëpp bokk nañ benn. Euh, oustaz li nga wax kay d'accord naa ci yow cent pour cent. waaw mais problème bi kay mooy par nous li wala li tubaab yi naan entre nous. waaw ñun suñu bopp nag léegi. la yëg-yëg boobu moo amul. mooy problème bi par exemple mais yëg-yëg boobu parce que ñi reyante ñëpp ay jullit lañ. mais li ko def mooy yëg moo amul gëmu gëmu loolu man gëmuma loolu nga baal mi yow tam gëmuloo loolu jullit bi gëmul nii li yonent bi wax sallallahu alayhi wasallam ci la saafara si ne gëmul ne li alxuraan wax ci la saafara si ne ah. saafara si da nga dem maanaam dañoo dañoo woon alxuraan ginnaaw ne ci leneen dañ ko woon dañ ko woon ginnaaw loolu erreur la jàmm du am ndax jàmm yàllaa ko yor waaw mooy dikkaat ci wa man arada an zikri ji rek wa man arada an zikri duñ fi jàll xanaa moo kenn mënu forcé yàlla ni day nekk di dogal dogalam rek waaye euh, loo ci gis jàpp sa mbokki jullit di xeex ñaari réew Irak Iran dem ci un million plus d'un million mort la fa yàq ci ay richesse kenn xamul nu mu toll ngeen pare ngeen pare ñi la doon jàppale wala bëti ko attaqué la ba un jour ñu dimbali ay nit ñu renfer renversé la jàppale rendi la nu di la yërëm rek di wax ni ab jullit nga di di di mettitlu di am yaakaar ni yàlla laa ilaha illallah yi nga doon wax ci mujj nangu na ko nga nekk shahid waaye ànd ak loolu lépp rek du tax li li li waroon li am li li am waroon a am wër woon am d'accord maanaam lii wërta dàqalee rek waaw oustaz nag ci loolu ay ay jàppante ak yu demee noonu xëy na ci monde arabe bi nu nga ko waxee léegi ak monde musulman parce que monde musulman moo gën a yaatu monde arabe. alors léegi ma def ci nag digression wàcc nag léegi ci sëriñ Abbas dañu am njàngat ñu def ci sëriñ Abbas Sall yàlla yàlla dolli leeram. ci ni mu nekk woon sunni yu loolu loolu il faut ñu nangul ko ndax dañu wax ne daal nekkoon na góor goo xam ne gii mosuñoo gis mu posé benn acte ci dundam boo xam ne bi dafa contraire ak loo xam ne day defar société bi. wala luy defar diine ji. abadan abadan loolu loolu moom en tout cas lu ko nit ñàkk a xabar yi war a xam ne sëñ Abbas Sall moom loolu yàlla defal la ko loolu. waa loolu nga loolu nga wax dëgg la. wala fi dafa am benn lépp bu ñu lépp. dañuy lëkk loo ko bañ bañ nangul ko gudd nopp at mën a. voilà loolu mooy dëgg bi. li nga wax sànq lu waay gàtt xam-xam gàtt gàtt xam-xam. bu ñu nee sëriñ Abbas Sall ci Louga sa xel li muy njëkk dem mooy ci ragal yàlla. waaw ça c'est clair. buñ ko tuddee leer nañ bu bu mu sànni monde arabe léeg-léeg da nga gis naar yoo xam ne dañ ko nii rek mel na daal dañoo gis lu ñu musul gis daal nii rek nii rek di ci wetu kaaba ga benn naar nii rek topp ko rek di ko xool nii rek laa ñu ma ko nag la waaye lii mani bu ñu nee Serigne ba sal ca Louga li njëkk dem ci xelu nit mooy ragal yàlla uh-huh. Oustaz Maodo nag ragal yàlla mooy li nga xam ni su amee ci doomu aadama yi adduna bi yëpp mel ni mu war a mel. mooy taqawaa rek. mooy taqawaa su boobaa lii nga doon wax sànq. Mhm. du am xëccoo yi xeex yi du am. ndax moo tax ma moo tax ma mandaxe leen. moo voilà ma ne boo ko boo ko xoolee am ay qualité yu bari dama ne boo ko xoolee lii jëkk wala buñ ko waxee li jëkk te nga xamoon ko lii jëkk ñëw ci sa xel mooy ragal yàlla benn leneen lii jëkk ñëw ci sa xel mooy xam-xam bu bare waaw ça aussi c'est vrai xam-xam loolu dëgg la ba ni xale yi tuuti. Mhm. Eh, ne ca waar wa di bay daan dégg dégg dong yi wax ñu Sénégal Sénégal ñi fi gën a bari xam-xam keroog ma dégg benn waaye daal ni ma dégg mu tudd Serigne Abbas Sall tudd itam ñeneen nag doon na Cheikh Tidiane Sy yàlla na yàlla doon di koy leer pour wan la ni la loolu nekkul loo xam ni lu ñu farase la loolu loolu la loolu loolu la li nga waxoon sànq xaqiqa la maanaam bu ñu tuddee Serigne Abbas Sall la xam-xam te xam-xam boobu ñun ba ñuy xel dañ ko daan dégg di kii waaye bi ñëwee nag ba nekk mag ba jege ko nag di ko di dégg ay waxam ci laa xam ne nag ñooñu doon wax kenn doo xam sax loolu fu mu jaar ba génn noonu uh-huh, uh-huh. waaw boo waxee moom ci xam-xam moom wan la ca déggin woo xam ni wii dafa lay jaaxal benn bis mas na koo seede ci ci ndar dama koy gàttal ndax masala ba dafa gudd taxaw na lu war a mat une heure de moom ak ay boroomi xam-xam ci ndar ndax dañ doon wax ci booba wàññi julli wàññi julli uh-huh. sëñ Maodo téere yi ngay gis ñuy wax ci affaire wàññi julli uh-huh. bu dul téere yu mujj yi doo ci gis bu bu ci wax ay ay ay ay kilomètres téere yu jëkkay am yàlla lañ daan wax am yàlla am yàlla am yàlla mooy jamooy mille mille waxu anglais la uh-huh. mille sax booy wax arab waaye bu doon ci anglais mile ngay wax one mile two miles bi ñu génnee Serigne Abbas benn waay bu bari xam-xam ci nar ni ko sëriñ bi mu ne mu ni ko damay laaj wàññi julli fan la tàmbalee Serigne Abbas ni ko téere de ñetti farzaq lañ wax ñetti far farzaq ñu ne mooy ñeen fukki mille uh-huh. kooko dégg ni ñeen fukki mille mooy ñeen fukki kilomètre Serigne Abbas mu daal di ko ah kon ku am ñeen fukki kilomètre mën ngaa wàññi ñeen fukki kilomètre ñett Serigne Abbas ni ko déedéet mu ne ko déet sëñ bi euh, arbaina miilan lañ wax sëñ Abbas ne ko miil nga wax waxoo kilomètre uh-huh. loolu tiré mu attiré sama attention ma ne a kon miil ba ñu ba ñu demee ci wax ji ba sori sëñ Abbas ne ko damaa bëgg nga xammee ni miil waxu anglais la man booba yow xamaguma sax dara ci anglais mais bi ma demee ba jamono soppi ko ba ñu fi gën a laa gis ni nekkite mille mooy mile ci anglais uh-huh. mais arab bu koy bind miim lay def yaa ak laam muy mille waaye ci anglais mile la uh-huh. mi mille nag muy maayal dafa ëpp un kilomètre presque mën na un kilomètre et demi. Mhm. waaw c'est vrai même ci géej gi sax maayal la moom moom laa la ci bateau yi bateau yi sax noonu lañ koy su ko defee ma ni mhm. ku jàngee ci Sénégal ci li ñu gis wëree ci daara yi dajale ci daara yi nan ngay def ba mën a séparer yu ba yow nga def analyse yooyu génn ci ni kat mille te xamul woon dara ci anglais nag loolu maa la ko waxal. Mhm. waaw xamul woon dara ci anglais su ma yeboo sax ne la France sax xamu waaye dégg mu ne mu ne mu ne sëriñ boobu mu ne ko sëriñ bi mu ne ah mu ne ko euh, mille du kilomètre yàgg nañ fa lool keroog bu mujj sëriñ boobu ne ko waa ah, kon sëriñ boobu posé la mu ne ah, mu ne ko kon liñ doon jàngale ba lu jógee ba léegi di jàngale ne arbaina milan mooy ñin fukki kilomètre waa loolu nu ñuy def léegi mu ne ko xanaa sëriñ bi mu ne mu ne ko xanaa geen bàyyi jàng loolu di jàngale lu bees rek <laughs> muy muy loo xam ni kenn nga dem ci boo demoon ci mantiq su la ci waxalee nga di nga dem ci wàllu naxwu ak taalif mu di ci def loo xam ne parce que kenn mën la ko wax li yàlla wax rek boo ko ragalee rek mu xamal la wattaqullah wa yuallimukumullah xam nga loolu loolu daanaka moom moom moom la sëñ Abbas loolu loolu la am maa ngi ñëw nga jóge ci loolu nga ñëw bu ñu su sëñ Abbas Sall te nga jege woon ko sa xel dem ci nit ku fonk boppam te bëgg liggéey bëgg liggéey. Oh. bëgg nit ñi liggéey te liggéey Oustaz Maodo mooy mooy développé réew. preuve bi mooy xoolal fa mu jóge ci njàmbur di ñu di ñu di ñu ba ñëw Sine Saloum sanc fa ay dëkk yoo xam ni ci centre de production arachide bière bi gën a rëy ci Sénégal muy Xaahira est-ce que moom boobu boppam taxoon mu doon ko def. la preuve année que ni boo demoon tey ca dëkk ba. Uh-huh. buñ jee téeméeri nit fukki ñooy taalibeem ñooy tuddoo taalib ñee ci des ñëpp ku mu neex ñëw ndax booba dëkk ba la taxoon sax nit ñi gën a ñëw mooy yeneen dëkk yu bari boo fa demee da ngay dem àllarba ci toolu sëriñ ba moom dañu ne boo fa dëkkee bu la neexee yaa xam bul ñëw bul ñëw toolu sëriñ bi wóorul kenn ci moom la mu leen wax leen benn charte la dëkk bii nag sanc naa ko ngir ñu jaamu fi yàlla ak liggéey fi waaye jàkk ji bëgguma mukk bis ñu ñu tëj ko waxtu julli nit ñi ci tool yi waaw loolu baax mu ñëw fa benn bis ñu julli tisbaar nit ñi xaw a néew lool waxtu jiri gerte jëri yow xam nga waxtu woowu gars yi nañ ci tool yi mu génne bàyyi ma yoro yàlla na ko yàlla yërëm ana wa nit ñi mu ne ko nit ñi di sëñ bi tool yi mu ne ko tool yi kon nañ tas dëkk bi nag bu ñu julli si kay nañ tas dëkk bi <laughs> xoolal bi xoolal cest à bi di di maanaam yow dëkk bi mu ngi taxaw ci jaamu yàlla jaamu yàlla d'abord nga liggéey teg kon bu ñu la tuddee suñu ambassade da ngay da dañ sa xel dafa war a dem ci da ngay da nangu xam-xamam waaw nangu nangu tam ak nangu jaamu yàlla nangu jaamu yàlla bu ñu ko tuddee sa xel dem ci ku am borom gis-gis bu sore borom basira la woon borom basira mhm. borom basira mhm. da da danoo dafa noo yónni ñu dem bitim réew di jàngi li mu daj ci yónni ay nit ñu dem jàngi tey ma ko ci ay doom da ah, day day def rek déedéet ku mu gis ni koo mu gis ni soo demee da nga mën a jëriñu jëriñe mu mu mu yónni mu yóbbu la mu yóbbu la mu yoon ma ñëw nu ñëw di ko nuyu mu ne ma lu ngeen di jàng foofu ma ne ko ah ñun de dañ ñëw sonal foofu mu ne ma lu ñu leen sonalee ma ne ko anglais ba daal moo dëgër këng doo ko dem te jàlloo jàlloo anglais dañuy jàng français dañuy jàng anglais mu ne ma oustaz am loolu am na solo te maa ngi fàttaliku oustaz Maodo gis-gisu mag ci wàllu njàngum nasaraan maanaam moom dafa gis dafa gisee beneen gis-gis parce que maa ngi fàttaliku bi ma jógee ci daara ji ñibbisi di jàng français bi ma koy jàng ci ci benn surga ci syllabaire dama ci ci clandestinité laa ko doon def. di ko nëbbu di ko nëbbu ndax boobu ba français nasaraan la ñuy wax xoolal mu am gis-gisu ni soo nekkee ci réew langue administrative ba maanaam gestion ba lépp di ab langue langue boobu waroo ko réer. na dëgg de façon yi gis-gisu yu mel noonu wax na dëgg wax na dëgg institut islamique ci Louga. wax na dëgg moo lay wax loolu. Mhm. li ñuy wax daara moderne waxoon naa ko mu xaat ko li ñuy wax daara moderne c'est-à-dire. moom moom daf ko incarné woon sans euh, appellation bi ñëw ñun ñoo daara moderne waragul xanaa xanaa si bi mu tabax moom boobu laa lay wax institut bi gën a rëy ci Afrique de l'Ouest gën a bari ay nationalité soo demee nationalité yëpp nga fay fekk ñu di fa jàng te mu bokk ci yi nga xam naar yi naw nañ ko loolu ndax xam nañ ko sénégalais itam naw nañ ko am na ku ma sa wax ne lim lim def sax ci école bi ngir sàkku xam-xam ak jàng lim ci def ci alal def ko sax ci këram bul wax loolu yow indi beneen wax dama Euh, naar yi bi ñu ñëwee di inspecté si bi ñu ñëwee dañ dem ci école bi ñu gis école bi liggéey bi avancé lool ñu ànd ak euh, Serigne ñu ñëw ci kër gi ah gis ni maanaam ci seen gis-gis ñoom gis ni li leen jaaxal mooy benn kenn ci ñoom li ma ma jaaxal mooy kayfu Cheikh maanaam mabalir yu toll nii montant yu toll nii mu def ko ci école bi te këram maanaam këram mel nii am na ñu doon indi xalaatu ni pour dinañ jël gar yi gan yi eh, yóbbu leen ci benn marali leen fii la ñuy dal fii la ñuy dal ci kër gi te ba ñu ñëwee ñu rafetlu ko lool toog ci suuf àndandoo li ma na bëgg a wax mooy kon réussir na réussir na pari wu fexe moom ci boppam ba mu mu mu jël xaalis boobu def ko institut milliard avant dévaluation milliard ca temps yooyu ak lu ko ëpp ba pare yar njaboot gi ba kenn du xalaat tàllal loxoom jëmale ko ci xaalis boobu moo tax loolu lépp mu def ko ci daara ji lépp mu def ko ci daara ji daara ji la ma ko yàlla joxe def naa ko ci daara ji te keroog ba ñuy teg xeeru première première première pierre ba la mu joxe comme euh, euh, maanaam motivation dafa ni euh, taal boo ko buñ ko taalee wet taal bu tee tàkk wet gu ne dañ ko taalee mhm. keroog noonu la ko waxee ci wolof ala jili mba yàlla yàlla ko yàlla yërëm mu ngi dende ak mu mënu ko mënu ko àllaji mu ne mënu ko mënu ko xale yi njàng mi doxatul nu ñu mën a def pour jàngalaat xale yi yaraat leen danañ ko def moo tax ñuy am na ñu milliard dañu ni ndax maa ngi lay xamal leen nag Oustaz Maodo yaa a xam milliard ci temps wu douze ans quinze ans yi lañ koy mais milliard kenn daw ko tudd bu yàgg ba kenn tudd milliard bi li mu war a mën na milliard dañuy milliard Sëñ Abbas fu mu jëlee loolu sëñ Abbas ni leen bu fekkoon maa koy maa koy maa koy wutal sama bopp de mu rëy ci man waaye man wutuma ko ci yàlla laa ko yaakaar te yàlla am na ko. moom ñaan na ko yàlla suñu borom nangul na ko ñaan nga. waaw alors mu koo xam ne. ma wax la ma naar yi ñu yónni woon pour ñu ñëw pour di xool ndax institut bi maanaam war nañ ko jox sëñ Abbas war nañ ko financé war nañ ko financé bi ñu ñëwee euh, sëñ Abbas ci boppam moo jël discours ci loxol boppam wax wax joo xam ne bi mu waxee ba pare. ñu bari dañoo dar seen gémmiñ defe ni defe ni c'est fini yëfi yàqu mu ne naar bi institut bi nangam li ngeen leen ñi ko xam experts yi dañuy moom lay jar dem na ci milliard yàlla doo nga tax ñu koy fondé di ko tabax jàngale jàngale jàngale ngir diine yàlla ji ak xam-xamu yàlla alquran su ngeen ko financé yàlla na leen yàlla gërëm waaye bu ngeen ko financé wu leen ñeneen financé ko xoolal naar yi nga xam ni ñu arrogant mën na bañ fa jógee ñu dañu ne am na ñoo xam ne dañu ne c'est fini c'est fini c'est fini mais waaye yàlla di womat baat baat dëgg la dafa yàlla di womat naar ba ba mu ñëw wax sëñ Mansour ni ko ndax xam nga lu tax ma dellu si sëriñ bi ma ko nettali mi ngi may dégg ndax xam nga lu tax ma dellu si mu ne ma mu ne ma góor gi wax bi mu wax keroog dama dem ni gars yi gis ngeen kee kee yàlla lay liggéeyal de kee de man ñemewuma recommandé ne buñ ko buñ ko defal oh. xoolal lii waaw Oustaz Maodo ak ragal yàlla moo àgg ah, ci fu ko dëgg fekk moo xoolal yàlla boo àndeek moom mhm. boo àndeek moom lépp loo bëgg ci àdduna bi da ko am waaye maanaam eh, wóolute moo jafe ñun dañuy séeneen bëgg a dem si waaye waaye defal rek te yàlla tax boo defee te yàlla tax ah. yi ma fàttali na ñu ngi fi dalal euh, Serigne Insa Sall ah, ñuy waxtaanee kilifa gu baax goo xam ne gii defe naa ni doomu njàmbur njàmbur yëpp Louga yëpp xam nañ ko waaye itam. mën naa sax Sénégal gi yëpp wala lu ko génn ñu ngi nuyu Serigne Mansour Al Khalifa bi nga xam tam moo ko fa euh, toogal euh, te it bokk itam ci asbaab yi tax ñu nekk tey jii ci émission bi ndax li ñuy waajal foofu foofule. alors ci wàllu monde islamique bi ñu doon wax léegi ba léegi dafa am ay analyste politique danaa dikkaat léegi Serigne Abbas ah, parce que damay jëlee ci moom ci àddina bi rek dikk ci moom. c'est très bien parce que àddina bi su ñëpp suñu amoon fukki Serigne Abbas Sall ci maanaam Sénégal gii. diwaan bu ne am fa ñett yu mel na moom ah yaakaar naa réew mi dana dana suqaliku. sëñ Maodo jërëjëf pourquoi léegi pourquoi léegi le monde islamique nga xam ne moo gën a yaatu sufiyanke yi mel ne moom ak ñi nga xam ni ay ñoom la bokkaloon jamono ñu naw leen lool ci këru rawatina ñu nekk tarixa Cheikh Ahmad Tidiane yi Chérif al Fatimi yi lan moo tax wala wala wala wala wala différence bi am ci entre yi ak suufi yi moo tax mënuñoo dem parce que dama gis ne sufiyanke yi souvent seen liggéey dañ koy teg ci yoon dañuy dal bu ñu nekk ku violent ah et dañuy def rek ngir yàlla fële coow la bari loolu man loolu lu andi loolu. maanaam da nga bëgg def comparaison. waaw pas comparaison sax mais kenn kenn ku ne da ngay xool taxawaayam ñoom ñëpp nag yàlla la ñuy liggéeyal mais damay gis ne ñu mel ne Serigne Abbas Sall ak ni ñuy jegee yàlla ak ni ñuy baaxel woon àddina ginnaaw loo bëgg a xëccoo ñoom ñu bala ko. waaw te ñenn ñoom xëccoo jar leen rek jël jaasi et cetera. waaw mais mais gis-gis yi ak ak ak point de départ yi ñoo bokkul. wala wala ci tarbiya yi la wala. ci tarbiya yi la absolument parce que parce que doomu aadama tout d' abord nekkul lu dul euh, tarbiyaam tarbiyaam. bien am mais nag dama laa bëgg wax ni léeg-léeg doomu aadama euh, ñu tarbiye ko ci dara mu dem ba mu yàgg ci étape boo xam ni bu bu bu bu bu yéex ñëw la sax ci dundam mu changé kon tarbiye lu mu doon mooy processus boo xam ne day continuer tarbiye mhm. tarbiye mooy lan. réaction bi am entre entre l'homme et l'environnement ah l'environnement nag mhm. nit a ngi ci école a ngi ci kër gaa ngi ci université ngi ci mbedd maa ngi ci fépp ngi ci mais réaction bi am am ak indi bi am diggante doomu aadama ak li ko wër ëtt bi foofu loolu mooy të loolu loolu mooy tarbiya ah, loolu moo tax oh. euh, euh, euh, tarbiya bi jeex tarbiya dafay continuer moo tax ñi yar war di yar di continuer bañ ñi yar naa rek xalaas jeex na déedéet ndax am na yeneen facteurs yu fi nekk yoo xam ni ñoom ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi jëf seen jëf kon yow mi yar bul bàyyi li tax fële euh, nee naa la point de départ yi ñoo bokkul nga ni ma tarbiya man la mooy loolu rek parce que nit mënul départ lu mu xamul mm-hmm. dañu ne ñett mooy former doomu aadama euh, maanaam environnement mm-hmm. bii mm-hmm. Oustaz Maodo nit mun a fexe ba dund lu lu bokkut ak li ne ci bii am. Mhm. bii bii rek ci ngay dund li fi ne euh, façon de de de de de de de pensée bi fi nekk loolu moom ngay dund. Mhm. xam-xam bi fi nekk loolu ngay dund. mënoo ko génn sax bii mhm. ak nizaamu siyaasi système politique. ah ak lan religion. conviction religieuse yooyu ñooy yi nga xam ne ñooy mooñ doomu aadama mu nekk li mu nekk ñeneen nag bu loolu amee ba pare. gis-gis yi ñu gis ak fi ñu depare moo tax coow la bare ndax da ngay ñëw léegi cinquante ans yi passé woon ci gannaaw ngeen dem léegi créé fi lu maanaam arabisme alxawmi mhm. al arabi mhm. loo koy dee yow lislaam a ngi nii looy dee dafa ne la kunu ibadallahi ixwanan waaw waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu wadkuru nicmatallahi alaykum id kuntum aadaan fa allafa bayna qulubikum fa asbaxtum mhm. bi ni'mati ixwaana yéen yàlla daf leen tudde ay julli yéen ñëpp julli ñi looy doyee lu ngeen di doyee lu ngeen doyee africanisme yéen lu ngeen doyee arabisme yéen lu ngeen di leneen ak leneen yaa xi antum muslimuuna yaa xi ngeen sànni fa yooyu yëpp nag créé keroog ba ngeen créé alqawmi al arabi keroo ngeen créé ay tendance yoo xam ni fa mu leen jëmee du ngeen xam mhm, mhm. parce que léegi da ngeen moo tax ba ma demee Paris ma ni lii ñu ne ma institut institut du monde arabe man ni Thièye. man de xamul tax du monde arabe. am na wala tax du monde waxuñu institut du monde musulman am na. waaw ah, parce que tubaab bi ñoom loolu la. ci mooy yooyu ngay xeeb. Mhm. yooyu ci la ci la ci la mbir yi di jaare ndax gis nga boo xeebee ki nga warut a xeeb ki nga ki nga naw tey ëllëg nit ñëw ne dana la dana la xeeb ko nga xeeb ko. sa mbokkum arab mi nga naw ba ni ko yow maa ngi yow noo bokk xuwul arabia noo bokk mooy institut du monde islamique noo bokk euh, ligue arabe xaw ma noo bokk noo bokk noo bokk benn waaye ñëw fii ne la da ngaa xeeboon africain bi bàyyi arabe bi waaye maa ngi la xamal ne yow danger bi yëpp ci sa mbokkum arab mi na ne dana la ko wax dina la ko wax dina rafetal ba nga xëy dal ci kawam dootoo amati jàmm du amati jàmm keneen du am jàmm mbir mi yëpp oustaz Maodo du dara lu muy sore li yàlla wax mhm. wa man arada an dicri fa inna lahu maishatan dankan al maishatu dank du fi jóg ndax nee loolu yàllaa ko moom te moom du ci boole wax doo ko gis doo ko dégg te mi ngi def li muy def. Mhm. du fi jóg fii ak ñi ngi gis gisi ni ñuy gis. kere ba ñu bëggee dal ci kaw Iran soixante dix neuf wala quatre ñëw ci sax dama wax ko ko dafa warul leen déedéet ñooñu samay mbokk jullit lañ. ñooñu samay mbokk jullit lañu déedéet ñooñu ay perse lañu. ñooñu xaw ma ay si àll ñooñu ay kii. nga dal ci kawam finalement mbir mi film la sa sa épisode accès gu laay bu accès rek. nga xam ne agsi na. tabaarakalla ñii nag ngay wax nii. Mhm. ñii seen yar dafa wute. seen yar mooy damay jàngal ay nit damay tabax ay nit yar leen ci yaru yaru du dara lu muy nga jox keneen respect. Mhm. lépp loo xam ne coow ma koy jox ak xuloo ak wax ji bon xoolal xoolal réew mi ni mel léegi. xoolal réew mi ni mel léegi. Mhm. lu neex waay wax man ñi muy tuuma fi mu ne nii buñ la yónnee WhatsApp sax da nga koy ragal da noonu effectivement da nga koy ragal ubbi da xamoo kooku lu muy wax bu ne salaamaaleykum rek doo doo xam lu muy wax ba bala ngay dégg mu wax jàmm nga sa xel dal nit ñi jàng nañu wax te lii ñi fi jaaroon bu ñu leen royoon ñu mel na ñoom Serigne Abbas Sall yooyu ngay wax. Mhm. wallahi kon kon. mais justement moo tax ma ne la suñu amoon ñu mel amoon nañ fi sax xëy na peut suñu borom mooy changé jamono bi waaye ñooñu seen seen éducation dañ ko waroon di gën a yaatal bokk loolu bokk ci waxin parce que euh, Serigne Abbas parce que koo xam ne boo tuddee boo tuddee turam rek. ñëpp dem seen xel dem ci yàlla parce que man loolu laa xam ci moom wax dëgg déet man loolu laa xam ci moom li parce que Louga laa dëkk soo ko déggee man bi ma nekkee lu tuuti damaa soboon nag dama daan dem ci gàmmam boobu daaw ma dem ay kii dama damay daw di wëri xaw ma sax fu ma jëm du ma sol sax ay dàll mais dama daan dégg kër sëñ Abbas mu woon ci man lool hmm. dama daan defal ne sax ab dëkk bu sori la hmm. mais su ma fa daan dem dama fa yàgg ma ñibbisi mais euh, li ma jàng ci moom mooy ci tarixatu ya ndax moom suufiyanke la woon kenn mënta werante ne amu ci wàccuwaay maa ngi dégg ci benn bande conférence bu Serigne Cheikh doon wax ba tudd ko. di wax di wax ci ay xam ak. ay ay ay ay ay mën a jàngam ak. di wax daal ci Serigne Abbas ay taxawaayu ak goreem. te loolu wax dëgg yàlla ku toll ne Serigne Cheikh Amady yi. ku mu ak li ko yàlla may ci xam-xam. ak li mu wër lépp ci àdduna bi. ak fayda ji mu am. ak ak jom ji mu am ak fulla ji mu am bu demee ba seede loolu ci Serigne Abbas kooku war nañ ko bàyyi xel yow ban jàngat nga ci am. Euh, jàngat bi ma ci am mooy loolu loolu mooy loolu mooy loolu mooy insaaf loolu mooy équité loolu mooy sellal gis nga euh, buñ ngay wax ci doomu aadama noonu noonu la islam bëgg doomu aadama mel ko te sax loolu mooy adala loolu mooy al adala loolu mooy mmh. nazaha al ilmiya mmh. nazaha mmh. loolu mooy honnêteté loolu loolu moom noonu la war a demee euh, te Oustaz Maodo gis nga ñii ngay wax nii ku mel ne Serigne Abbas boo waxee rek ñu defee ni mooy da daan toog di jàngale wala nga ñëw Sëriñ Abbas jàngaleem léppam jàngale la woon jàngaleem ci téere jàngale la uh-huh. toogaayam jàngale la uh-huh. ay waxtaanam nag ñëw nekk gën a gën a nekk jàngale moo tax sénégalais bu ñuy wax naan waaw kenn ku nekk di am koy woote man may wax ni benn waay daf ko mosoon wax muy wax ju am solo daf ko ni diw mi ngay wax ni mooy sa sëriñ est-ce que bu ñëwoon dana nangu mu yow nga nekk taalibeem li ma bëgg wax mooy sénégalais li cooli bari bari xamuñu sax ñooñu lu ñu bind gis nga ñi ay nit la ñuy xam ni akabirul ulama fil gharb bu ñu waxee ñu wax man damay man xam nga nu may def damay jël li sëñ Abbas bind di ko di ko di ko di ko di ko lire di ko analyser di ko jéem a dund jël benn bindkat occidental benn bindkat occidental lu mu bind tey te muy ci même juge bi ma di leen comparer di xool loolu def naa ko ba am na ci bis yoo xam ni damay waaru ci yàlla te li li yéeme mooy nun xamuñu sax lu xew nun xamuñu sax lu xew te ñële nañu jàngalee tarbiya ñii noonu lañ la jàngalee tarbiya nañu jàngalee euh, relation sociale ni ñu ko war a préserver ni ñu ko war a sauvegarder ñi def lañ lu ko raw ni ñu jàngalee jëf ju rafet ak wax ju rafet na ko ñële defee ak da xamul tax dama laaj tax mhm. ñële dañu am dañu am may gu leen yàlla may ñu jàngit nag am expérience di wax mais ñii dañuy dañuy niitoo lumière yàlla. waaw bokkuñu non bokkuñu ñii dañuy liitoo lumière yàlla benn exemple boo ma ko mayee. ma jox la ko. Mhm. boo xam ne dama lay wax. xam nga sëñ Abbas dafa wax ci wax li nga xam ne mooy bëgg a tas réew mi wax. Mhm. sëñ Abbas dafa ci ah, wax wax rek wax wax yi bëgg a tas réew mi. wax mooy daf cee wax. ma di ko jàngat di ko jàngat ba ma ca pare ma dem ci alxuraan di gëstu wax ba ma pare ci alxuraan ma dem seeti nag beneen philosophe lu mu wax ñu wax. ma boole ñett yooyu. c'est très bien loolu la ngay def solo la. non laa la wax. ñun dañu fii di wax waaye jéemuñu sax xam ñii ñooy ñan suñu Abbas mooy kan. suñu Abbas dafa ne waa taxul ma wax la naa jëkkee ci kaw dafa am benn benn français ku ñu wax Montherlant Montherlant. xam nga ko. xam nga lu ma wax. moom dafa bi mu ñëwee ci wax dafa ni li lu baree ngi ci dëkk bi ci pénc bi nan ko nan ko teg fële buñ ko wax am na ci loolu jërte wax. waaw dañuy tardé rek. daf ñuy tardé. ñu ne ko wax kon benn yow wàññil leen kon léegi li jarul wax lépp buñ ko wax mu ne waaw mu ni li jar a wax ñenn ci nit ñi lañ ko war a wax waaye waruñ ko wax lu bari ci nit ñi. xool xool Oustaz Maodo loolu. wax na dëgg de. xoolal dafa ni. wax jaa ngi ni fees dell nañ ko ne pacc def ko ñetti xaaj ñaar yi yëpp wax. lu jër ta parce que du ñu dara. du ñu jëriñ ñëwal ci benn bi benn pàcc bi ceer bi neel nit ñi pàcc ñetti xaaj ñaari xaaj yëpp jëruñoo wax loola loola wax ko ñetteelu xaaj ba boo ko defee ni wax du pare. tant de tant de choses. ne veulent pas d'être dites. Ah. et tant de gens. ne veulent pas que les autres choses leur soient dites. absolument et cela fait beaucoup de sens je suis d'accord moonte la mu ne bu ñu defee dëkk bi nii. ñëpp mënuñoo xam lépp wala mu ne bu allahu akbar dëgg xam nga kii du doo di julli la waaye li mu xëy na. waaw lu leer la wax. nan ñëw ci alxuraan wala fan laa war a jëkki sëñ Abbas. Mhm. nan jëkki sëñ Abbas. moonte la du dégg nga li ma la li ma la wax moom la wax. dégg wax bu ñu wax lépp am na lu bari jërëjëf wax. te mhm. li jar a wax ñu tuuti lañ ko war a wax. point. Mhm. Sëriñ Abbas ni su wax baree di bëgg a ñaaw jógal te nga noppi noppiloo sa ñooñ nga am woy wax la dëgg de wax la dëgg waaye yow bu fekkee yow yow dangaa noppi li li nga wërte wax li doo ko wax sa waa kër bëgg wax ngeen leen du ngeen wax yow sa bëgg waa kër bëgg a wax yow ngeen leen dool dooli wax ka ca kaw waa mu bëgg wax député bi président kenn ku ne ñii la ñi la daal nga ni kenn ku ne bul wax lu jërtu wax kon kon wax du am di sas kon détail du wax baree di bëgg a ñaaw jógal te wéy noppiloo sa ñooñ nga am wéy maanaam ñu tagg la wax na dëgg na na léegi dégg nañ li Monteslan wax Monteslan problème problème bi mu dugal mooy nan la ñuy distinguer nit ñi nit ñii lañu war a wax ñi ñu ne xam nga alxuraan lu mu wax mhm. wa qulu linnaasi xusna waaw mhm. kaddu guy yëg bu mu bu kaddu génn lu dul mu rafet laa yuhibbu llahu aljahra bi suui min alqawli illa man zolima alquran dafa wax ne wax na rafet sëñ Abass nag ne gis nga loolu lépp moo tax wax la ci leen su wax dee am rek jógal noppil te jóg noppiloo ko am waaw ah, parce que wax ji rafetatul li ma li ma bëgg a jublu ci lii xam nga lan loo gëstu ci jàngalekat yeneen am nañu ko ci te nii ma ko waxee sëñ Abass nii mën naa la ko waxal ci keneen beneen beneen ku mel na Sëñ Tuubaa mën naa la ko waxal ci El Hadj wax la ko ci keneen mhm. kat yu mag yëpp ndax ñooñu bi ñuy bind bi ñuy bind gis nga euh, dañ doon bind fekk li ñuy bind maanaam inspiration la maanaam nekkul lii euh, lu ñu jàng maanaam doo li ñëw fekk ñu xool ci téere di bind mbir mi du mbirum téere mbirum maanaam inspiration la mbirum compréhension boo xam ni xamoo fu mu jóge la nii ma la ko waxee nii bés bu nu toogoon jotaay bu yaatu moo wax la ni di moo indil la ci beneen domaine beneen waay beneen wax beneen moo tax ñu mel noonu moo tax moo tax suñu abbas toogaayam toogaayam moo tax ngi gi ngi gi nga gis nii ak yeneen jotaay foo gis suy wax suy wax rek maanaam wax ji nii wax jum wax boo ko seetloo te li ci gën a yéeme mooy universitaire bi universitaire bi uh-huh. ak ki duggul basin ak ki jàngul AB ñoo yem ci waxtaan bi kenn ku ne daf ciy jëriñ ñu leen am ñëpp rek. waaw kon Oustaz loolu loolu li mu bind lépp noonu li mu bind ci arab ak li mu bind ci wolof ak li mu def ci ay cassette malheureusement malheureusement yooyu kenn toppatoo ko di ko jéem a segg ci façon bii ma wax waaye boo ko seggee woy bu ci nekk nga am te say morom amuñ santal buur te bokk ko mbokk yee bul def mbir ma ngóor partage. Mhm. partage bi ngeen di wax. Mhm. Ah? Mhm. te boo amul muñal na mooy sa yiw te muñ mu jëm nga moo di muñ yàggit mu ñëw maanaam maanaam di wax wax yoo xam ni su ci doomu aadama yi doon jàpp noonu amunu ngànt de amunu ngànt ñii li ñu bind bàyyi ko fi xajul ci ci àdduna exploitation bi mais lan moo lan moo lan moo freiné en fait lan moo freiné exploitation bi ku mel ne Serigne Abbas boobu ngay wax loolu la kaset yooyu ngay wax lu tax duñ ko faral di teg parfois ci ay xam nga xam nga Serigne Mansour moom dafa dafa fegu loolu moom dafa moom doo ko gis ci média yi doo ko dégg feneen et cetera est ce que lenn ci njaboot gi mënuñu woon di jéem a exploité comme ni nga def nii lenn ci ay waalam ñu koy ñu koy jëfandikoo. wax nga dëgg. loolu wala wala tamit xëy na question de temps la wala. de li xew mooy li xew mooy euh, gis-gis yi ñoo ñoo agul woon foofu bu njëkkoon léegi ñi ngi commencé. di gis ah, ni di gis ni. di gis ni lii nga wax nii dafa war a am. absolument dafa war a am dañu war a am boo fexe ba mu nekk accessible à tout le monde ah, nga xam ku ci bëgg a jot jot ci ah, soit nga jot ci lu ñu enregistré soit nga jot ci lu tuuti lu ñu bind loo xam ne booy dem a ngi xalaat ci loolu euh, di ko xalaat rek mhm. maanaam nekkul loo xam ne euh, dem nekk lu concret mais ñi ngi xalaat nu ñuy def ba lu mel ne lii ma la wax nii ak leneen lu bëri bëri surtout ay nasihaat yi muy joxe ak conseils yi muy joxe ak waxtaanam waxtaanam man de su ma koy amal léegi doon ko sur FM gi léegi bu ko defee waaw bari na bari na fi nag eh, ma wax la leen nag mm-hmm. eh, eh, xam nga rek julli ñi itam parce que ñoom it seen liggéey seen œuvre mm-hmm. dafa am maanaam du ma wax sax dafa am relation ak diine seen seen seen kii yëpp tarbiya ruuxiya la waaw lépp lépp lépp maanaam dañuy yar ruuxu doomu aadama mm-hmm. te nun jamono ji nekk nag leneen li fi nekk di fab bi nit ñi dafa bari trop. trop trop li ci gën a terrible te mujj a ñëw te te dominer nit ñi mooy lii ñuy wax WhatsApp la xaw. mais loolu loolu dama lay dama lay ceex sax dëgëral li nga wax léegi ci wàllu réseaux sociaux yi ngay wax. ak WhatsApp boobu nga wax noonu la gis nga ñu ko créé dañoo ñoom seen bopp ñoo def déclaration bi ñu créé loolu ñoom ñoo ne dañ ko def pour nit ñi yàq seen temps surtout nag ñun ñi nga xam ne xam nga moyen de communication la loolu pour développer mais africains yi malheureusement. kër goo dem ñu nga ci sëgg di ci sëgg ba léegi li nga war a def ci journée bi dootu ko defet te ñoom ñu ko def seen objectif moo doon jox ñu beneen affaire li ñu wax naan os xam dañu nekk ci benn yàq di di rek di xuloo rek moom la wax mhm. tubaab yi bu ñu seetee ba xam ni yax bi ñu yor yàgg na nun rek ñu sànni beneen bu bees ñu jox ñu beneen mais wax naa la ko wax naa ko fii ci rajo bi ne tubaab yi dañuy nax ci seen réseaux sociaux yi dañuy fexe ba maa ngi yow ñuy communiquer di wax léeg sax maa ngi yow ñu nekk ci leneen ñu nekk naan envoyé nga ma élément bi envoyé nga ma nii kii wax aaya bi kii weddi ko nangam tubaab bi dem liggéey jamono yi ñu ay découverte moom laa la wax ci asamaan si dem mais mais Oustaz Maodo man a ne la waxuma la découverte waxuma la man njàngu traditionnel mhm. mi nga xam ne mooy nga dem université de professeur bi mu wax ci ay conférence mhm. nga ñëw di réviser ci kër gi mais WhatsApp mi ngi bëgg a loolu man am naa gis naa étudiants yu bari yoo xam ne talu talatuñ seen cours mais lii lii lii affaire bi c'est catastrophique li du jàmm catastrophique mais parce que ñoo ko nangu ñun ñoo ñun ñoo doyee di waaw mais mais topp tubaab yi ci loo xam ne mais mais mais loolu euh, yéen ñi ci ci ci ci ci médias yi am ngeen cër état bi am na ci cër lu dangereux la da ngay gis benn waaye dafa ne ma moom yaakaar na ne am na kër yooyu bu connexion amee mën nga faa def ndànk ba jaar ca bunt ba dugg ba jël dara li ngay jël ba génn te da koo fa te kenn du la yëg koo gis ma nga nii rek ëpp naa léeg-léegoo léeg loolu am léegoo léeg loolu am. c'est euh, grave bu fekk ñëw nga fekk bunt bi ubbeeku da ngay ubbi ndànk dugg kenn ku nekk ba ngay def nii kenn ku ne kenn ku ne concentré wu. kalam faarir dara da amu ci amu ci njëriñ mbir mi li muy jëriñ mooy oustaz Maodo maa ngi yow am na rendez-vous ma bëgg laa wax ni mënu maa ñëw ma yónni la ko. point rapidité bi rek la. dama laa bëgg wax ni maa ngi la ma waroon kii point. waaye bëgg ko def suba ba ngoon ñii seen njàngale maanaam. verbiage boobu amu ci. waaw non dañu dañu bëgg a jox loolu comme os de ronge bi nga wax ñoom ñu nekk ci leneen. nekk ci leneen ñun ñu ne fi di xuloo. voilà voilà loolu te loolu yàlla ci yàlla musal. yàlla ngi ci janoo bi ba léegi ak bi ah, bi moo tax waaye ba tey ñu ngi janoo ci l'islam ci yoon wi fii ci 2STV lan may xew ci njëkk bis boobu. ci bis bi lan la bis bi demee ak Maata kañ la. waaw ngi ngi xew xew la boo xam ne. Mhm. Euh, xew-xew bu rëy la xew xew diine la fay xew euh, nettali rek du ci doy maanaam li ma bëgg a wax mooy ku fa dem euh, yaa koy gën a mën a xam ci nettali te place la boo xam ne jaamu yàlla kese la yaraat bakkan iidul arwaax lañ ko tuddee parce que euh, sëñ Abbas moo ko tuddee woon sëñ Maamun Njaay allah yarhamu ca ndar ah. moom moo woon xoon sëñ Abbas ni ko nañ ku tuddee ay iidul arwaax moo na feet goo xam ne bu ñëwee ruu yi dañuy noppalu dañuy noppalu ci lan waay uh-huh. dañuy noppalu ci bàkkaaru kenn du fa bàkkaaru xamul ta boo fa ñëwee mi ngi dalee alxamis aljuma samedi ba dimanche ànd ak nag ma fàttali ni bu shahru muharram tero ci la kaamil lii di ci la kaamil yi di démarré ci fépp Sénégal mbokk yu nu xam ñu nekk ci daara fenn fii ba Casamance fii ba Jolof ku ci sëriñu daara wala nga yor ay ndongo dañu lay chargé ni la loo jàng ci ay kaamil noté ko bu bis baa mooy kaamil yooyu ngay dégg ay quatre mille kaamil ay cinq mille kaamil ànd ak nag quatre quatre jours yi ñu fay def quatre jours yooyu am nañ boo euh, boo demee ci ci ci cellules yi fenn fu ne ñu ngi fay jàng alquran am na ñoo xam ne jàng alquran lañuy la ñuy liggéey du amuñu beneen liggéey waaye leneen li ci des majorité bi ci nit ñi euh, ñaar ñaar am def ay astaghfirullah zikrullah waaye itam déglu ay waxtaan alhamdulilahi rabbil alamin ma wax ko bi nu yàlla maye ku mel na cheikh docteur Mouhamadul Mansour nga xam ni eh, ñi may dégg xam nañ boo loo nekk nekk boroom xam-xam boo toogee bu waxee nga jëriñu ci. non moom loo nekk nekk boroom xam-xam. soo toogee soo waxee nga jë moom moo mun a moo yor waxtaan ya ak ñeneen ñoo xam ni moom xool na leen ba gis ni eh, am na ci ñoom yaakaar ni war nañ koo mën a di jàppale. su ko defee dañu fay waxtaane euh, euh, euh, maanaam lu jëm ci lépp lépp lu soxal jullit sax Maodo hmm. lépp lu soxal jullit ren nag thème bi mooy dellu gu ñu war a dellu ci islam ci ci alxuraan ak sunna loolu mooy thème ren bi. mais loolu mooy defar àddina bi. mais mais mais loolu moo. dama ne la mooy li ma doon wax léegi. ñàkk dellu ci alxuraan ak ñàkk dellu ci sunna moo indi pagaay bi moo indi coow li moo indi xeex bi indi xuloo bi waxante bu lu bon li su ñu defoon li wax li waquulu li naasi xusnan uh-huh. wax leen lu rafet noppi man kaana yuminu billahi wal yawmil axira fal yaqul xayran aw li li yasmut yonente bi ne boo gëmee yàlla waxal lu baax te noppi bu ñu def loolu loolu lañ fay jàngale conférence bu ñëw maanaam julli bu ñu julli danañu def ay ay azkar loo xalaat ci dikr astaghfirullah la ilaha illa allah allahumma salli dañ fa def ya latif da lu ñu fay def ci ay asma yooyu kenn xamu mais yooyu la ñu fay nekke pendant quatre jours ba ci dimanche ji nag ci la euh, officiel yi di ñëw gouverneur de la région euh, préfet sous-préfet et tout ñëw ak autorité ak ñi nga xam ni ñëpp ñoo dëkk tund Njambur ak Sénégal léegi dañu am ba gan yu jóge ba bitim réew. ba ban date la ah. date bi. date bi du 4 au 7. octobre ah, mois du mois prochain mois mois de prochain mois prochain. mois octobre euh, léegi euh, suñu abbas dafa daan def jal sa yooyu mujj ci mujj dundam li ci ëppoon ay dikkar la ay dikkar suñu abbas ni te ñoom wàññi dikkar yi te di waxtaan suñu abbas ku fonkoon yeete la ku fonkoon yeete la mhm. parce que nee na nit buy nelaw nit buy nelaw xool nit buy nelaw mhm. nee na boo jëloon milliard jox ko ko teg ko ci wetam maanaam maanaam du yëg sax ni def nga loolu xamul tax mhm. mu ne day nelaw waaye nee na ne ko pëkk pëkk pëkk ba mu yeewu nga ne ko sëñ bi ne ah nga ko lii kat téye ko baax ab milliard la def ko doon nikkite maanaam li a wax mooy. parce que booba yeewu na ah parce a wax bu dee ci wàllu adduna bu dee ci wàllu diine loo ci wax nit ki yee ko ba mu yeewu. Mhm. bul ko nax yee ko ba mu ne jaar moo tax da daan wax ni jotaay yi ku ko teewe ba mu wóor ni kenn mënatu la nax ci sa diine ak ci adduna sa adduna bu la neexee bañ ñëw ti waaw ba xoolal ma lii. nee na man moom bëggul woon di téye nee na man du ma sëriñ laa bëgg a doon bëgguma nekk sëriñ yeetekat laa bëgg a doon ana lastu cheikhan wa innama ana murshid wa mu'in waaye bu boole na yëpp. waaw <laughs> xanaa kay dafa bañ a. waaye loolu la ndeysaan. Euh, pour wan leen la. sëriñ dëgg la waaye nag dafa dafa. loolu moo tax nit ñi wax dëgg yàlla ñuy jox akam ngi léegi mbokk yi dañuy dem Dakar dañuy màng. ñeenti fan ñi comme ñi nga xam ni seen situation ba ak seen euh, circonstance su euh, kii xëy na liggéey bi may leen ko ñu ñëw samedi ñëw samedi dem dimanche mais ñu ci bari dañ ñëw alxamis fanaan si àjjuma ñu julli fa di jàng alquran di def laa ilaha illa allah oustaz Maodo ba yeggal mu am beneen dimension boo xam ne sëriñ bi dugal na ko ci ci at yu mujj yi mooy léegi muharram chehru zaka dëgg loolu dëgg maanaam li gën a bari ci julli ni muharram lañ jël comme point de départ pour bu bu bu muharram ñëwaatee ñu génnee seen asaka ñuy woo mbokk yi koo ci xam ne am nga ay asaka ku am yére yoo xam ne parce que li ngay am na looy sol yow loo xam ne yow du solo toog ko soxlaatoo ko am na ñoo xam ne ñoom ñu ko soxla léegi mbokk yu bari dañu fay ñëw pour partage boobu ñuy def mu bu ñu defee euh, cérémonie officielle bi dimanche ba gan yi dem am na commission boo xam ne fa lay des seet ay nit ñu fa amuñu xamuñ yémuñu nga xam yaakan seet nañ la xam sa état nii nga mel rek ñu yëkkati lay sa wërsëg muy ci wàllu alal muy ci wàllu yére muy ci wàllu mbaax ceeb ay nit loolu lañ fa nit ñi indi dañ ko dañ koy joxe tey dañ ci gën a mooy sëriñ bi laaju ci kenn lenn ñë fa ñëw it alhamdulilah kenn ku ci ne loo am doy na la ànd ah, nag léegi sax nag dañuy ragal euh, euh, euh, ña fa nekk ci dëkk ba ak waa kër njabootu bi ni ñuy ñu yokkee volume mu lekk ak ñu ko ni ñu ko defere ak nganale yi dañuy ragal sax mu wàññi tuy abaji waaye loolu it wàññiwul ah, dara loolu wàññiwul dara <laughs> waaye dama la bëgg wax ni ngiig maanaam lu am solo la waxu mosoon na am benn waaye ñu génn ci armée li di ñëw bi ñëw mu ni laa ilaha illallah lii de dootuma ko tardé boppam lay waxal rek maanaam kalaam naf si ma ne ko sëñ bi loo wax mu ni ma ah lii man lii bii c'est la première fois mais dootuma ko tardé loolu ma jàpp ko parce que la mu gis ba tax mu wax loolu mooy ni gis na fa boo fa ñëwee Oustaz Maodo da nga dégg ci waxu dëgg ak waxu diine ak waxu yar loo xam ne doo ko dégg feneen yàlla kese non doo ko dégg feneen maanaam li li li nga xam ne sëñ bi moom lay wax foofu ak li muy li muy li muy li muy développé doo ko dégg feneen doo ko dégg feneen parce que xamal ko def mooy du ci du am lu mu ci xalaat nan naa waxee ni ndax bu ma waxee léegi déedéet day wax comme ni mu war a waxee ni ko islam bëgg mu waxee ni ko patriotisme bëgg mu waxee fonk say nit fonk say mbooloo ni ku ko mel ni nga war a waxee mhm. noonu lay wax mu teg ko ci dëgg rek muy njàng boo xam ni euh, continuation la ci jàngu jàngale eh, Serigne Abbas yàlla nañu yàlla yàlla nañu ko yàlla fayal. yàlla ko yàlla eh, fayal bu ñuy demit comme ni ñu ko daan defee toujours SICAP eh, point de départ la kër Ndeye Soxna Ndeye Khady. Mhm. kër Serigne bi Liberté 6 extension. Mhm. point de départ la kër Serigne Abdou Aziz Sall jëppal kër Marago foofu itam point de départ la. ku munta dem sam ku munta dem alxamis boog lu gàtt gàtt nga dem samedi ak dimanche. Mhm. ndax ndaje la moo xam ni Oustaz Maodo la fay ñëw ci ah, maanaam lañu la la la fay la ñu fay def pour euh, yaraat conscience doomu aadama lu am solo la. d'accord mais noo gisee loolu loolu daañu ci dikkaat léegi sama la ñoo jeexal ci Serigne Abass Sall ak euh, maqaamaat yi nga xam ne moom la ko yàlla jox gi demee noonu donte sax moom loolu daf ko doon. du ko wane nëbb waaw du koy nëbb allahu ko ko xamee sax bu nga ko te pourtant yàlla yëkkati na ko trop ci wàllu xam-xam ak yeneen yi nga xam ne xëy na xam na ko sax te xëy na lu réere nañ ko rek day fokk fokk nag ma may wax sama bayt bi waaw dama ko wax ni ko warumta min tibi fadlin tayya nashrikumu lakinna nashirahu fi laalami llaahu hmm. da nga doon fexe ni yàlla may kenn du ko gis nga di ko nëbb waaye yàllaa ko ni fang sa génnee ko loolu benn way <laughs> loolu dëgg la <laughs> donte donte da ko doon jéem a nëbb ah. noo gisee comme léegi da nga wax léegi nag suñu li ñu woon alxuraan ginnaaw moo tax ñu am problème. waaw loolu dëgg la. waa léegi suñu réew yi nga xam ne dañuy woote même bu dee sax ñun ñu nekkul ci réewum jullit xëy na ay quatre-vingts nangam nangam pour quinze cent musulmans mais affaire bi dafa jaxasoo affaire bi dañuy pëcc ko di rek xam nga. non non maa bëgg laaj fu ñu war jaar. waaw bunt bi. waaw ak jafe gis. bunt bi jafe naa gis. bëgguma laa découragé bëgguma laa désespéré lool <laughs> mais ak xamul tax xamul tax. Uh-huh. dafa am ñoo xam ne xam nañu désarroi bi am. ba pare ñu jóg nag ku ñu gis ngay bëgg a ku ñu la déedéet du foofu fii la yii bul jaar foofu ah waaw des forces occultes yoo xam ni dañuy liggéey pour loolu pour kenn du kenn du du gindeeku parce que xam nga gindeeku noonu mhm. gindeeku xam nga lal la mhm. gindeeku mooy nañ wax nañ wax yàlla minu bind yàlla bala muy nekk boroomu jullit ñi mooy nekk boroomu nit ñi yàlla moom lu mu wax ne nañ ko dundee loolu loolu mooy gindeeku di. d'accord nag yow de. déedéet benn benn prêtre américain xam nga lu mu wax. Uh-huh. bi fa benn waaye duggee métraillé su mu ak ci benn école roose ba mu jeex ñu ñëw indi fleur laay la def seen julli yooyu mun mu ni ñun dañuy fontu yàlla dafa ñëw suñu kër nu dax ko mu ni kon ci cour bi ñu ne ko du fi mu ni ci penc mi ñu ne ko du yàlla dem seytaan yi def li muy def ñu ne yàlla kaay mu ne yàlla du ñëw xoolal benn benn prêtre américain boo xam li ma bëgg wax mooy mbir mi. su fekkente ni bii looy mënti def dañu la bu ci boole bu ci boole diine bu ci boole waaw baax na bisimilah. moo tax di coono aywa ruux ruux ah, suuf. ah mais le problème la muskil. Ah, loolu laa la wax te te moo tax ma ne moo tax ma ne jërul ragal de nañu wax lu mu wax xam nga diine lu mu wax Oustaz la mhm. mooy looy wut wut ko ci tayu bakkan. looy xëccoo lii nga gis gaa yi di wax nii dafa ni leen. waxal li ngay wax lépp na nekk dëgg. Mhm. li ngay wax ci sa mbokk lépp na nekk dëgg. est-ce que que loolay am. Mhm. kon bu ñu bu ñu bëggee jàmm am nañu delluwaat ci diine rek fa diinu fa diinu arhamu wal islaamu manqadatun min al min al mahaliki in xakamta furqaana uh-huh. fa diinu arhamu lépp loo gis muy yërëm la la gën a yërëm loolu mooy diine diine ko gën a yërëm diine dafa yërëm Oustaz Maodo waaye diabolisation bi tax na maanaam kenn xamatul li ma la wax uh-huh. sooy wër tey ba bëgg a gis bunt bi ñun la noonu foofu foofu du bunt bi am na ñoo xam ne dañuy liggéey pour loolu. pour désorienter nit ñi rek. désorienter nit ñi ba fi nga waroon a gindikoo doo fa gindikoo. Ah, li gën a bon nag mooy maanaam euh, fexe ba nit ñi jullit benn du am sa borom confiance maanaam tey bu ma ñëwoon tey euh, yow Oustaz Maodo mooy ab jullit nga ab jullit dañuy fexe ba doo am ci man confiance du ma am ci yow confiance moo indi moo indi conflit yi ngay gis ak ak xeex yi ak guerre bon yi. moo indi aussi dissension yi nga gis ak. absolu xulóo yeeg ñaaroo yeeg ñiiroo yi. très ma xam nga dama lay indil benn aaya ma ni damaa génn démb ci jàkk ji ci fajar benn aaya ñëw ni tàpp ci sama xel moom laa lay waxal nii mm-hmm. oustaz Maodo ndax yow jaamu yàlla nga ndax man jaamu yàlla la ndax diw jaamu yàlla la on doit se poser la question bul ko ragal xamul tax mm-hmm. yàlla dafa ni wa ibadu rahmani alladina yamshuuna ala al ardi hawnan mm-hmm. wa ida xaatabahum aljahiluuna xaalu salaama xaalu salaama yàlla dafa ne sama jaam yi bu ngeen leen bëggee xam kaay leen ma wax seen qualité loo boo saagaa mu ni baal naa la nga dóor mu ni baal naa la nga xas mu ni baal naa la mën na ci biir jàkka ji di julli ñu ne benn waay rendu sul mu créé fa tension ak coow loo xam ni waxuma ci biti jàkka ji de alquran aaya bi dafa ni ci biti bu ñu la ñu la bu ñu la dóoree neel neel neel bu ñu la saagaa naa la yow nga ci biir jàkka ji ma ni waaw ndax jaamu yàlla nga kon ndax yàlla nga ci jàkka ji di xuloo ci biir jàkka ji ci biir jàkka ji ma ni même bu fekkee du nga ñëw ci biti naka nga mën a julli juróom yëpp mun nga nekk ca jàkka ji di julli xushuwa alquran déglu ilimaan yi léeg nga dégg kuy jooy te bu ngeen génnee ci bitti bu ngeen naan nii rek damaa mas di julli fajar war a jiite ma gis benn waay moo benn waay ñuy wax ma gis kenn ki nii ko nii xam nga loolu mooy lan. bu ñu génnee xeex bu ñuy génn rek kurpe ñuy dal ma ni asalaamaaleykum au lieu ma def tasbiix wala dara ma daal di jóg ni man de dafa am lu ma jaaxal buñ mënu woon wutal ñi gën ci jaamu yàlla yi damay jekki ba fajar ma dem ci jàkk ji parce que julli googu moo tëtte ñëpp kon bu ma ko doon wut ci yéen ñii laa koy wut jàkk ji itam su ma ko ci doon wut yéen ñaar ñii di tëkkoonte yéen ñaar laay tànn seytaan yi leen di bëgg a mën de may wax ak ñoom bañ joxante loxo loolu la baax. loolu laa la bëgg a wax loolu kay mooy lu baax. lii ma lii ma war a am naka ngay mën a di julli te ku la tudd rek problème am foo ku la wax nga sànni loxo mbedd mi ku la ni ku sëñ bi niil ni kenn du la tudd yow ana xul alhawnu alhawnu wa ibaadu rahmaani alladina yamshuuna ala al ardi hawnan hawnan maanaam nit koo xam ni kii dafay dal woyof yonent bi wax nag al muminuuna hayyinuuna layyinuun yonent bi ne na jullit day nooy comme gileem mhm. xoolal gileemu tukkal xale buy toll ci ñetti at yor ci nas bi di xëcc buy tëdd waaw nooy moo defee loolu jullit noonu la war a mel Oustaz Maodo waaye jàgg gi ak ku la tudd muy ay di wax lu bon ndax jullit lañu ndax jaam yàlla lañu loolu c'est une très grande question mbokk yi kon ma fàttali daanaka ñu ngi ci catal waxtaan yi moom la ñu wax léegi ñu ngi doon waxtaanee sëriñ Abbas Sall bu luga di nitu yàlla pire gu ko nangul doon borom xam-xam nekkoon suuf yanke boo xam ne bii kenn werantewul cëram ci yàlla ñu ngi ci dëgg nag di taasu ci barkeem waaye tamit di ñaanal sëriñ bi xalifa bi sëriñ Mansour yàlla gën a guddal lool ak njabootam ak itam mbooleem képp koo xam ne ki rek sëriñ Abbas Sall ci boppam moo la njaboote maanaam ngay doomam yàlla yàlla defal la barke boobu yokk sa fan looy tëje sëñ Maodo li may tëje mooy euh, gannaaw bu ma gërëmee la gërëm kër gi ci bunt bi ngeen ubbi di ci way may nit ñi ñu ci porox ndoll boo xam ne dañ seet seen diine ndax émission yoon wi émission bu yàgg bu am solo la euh, di mbir mi jaxasoo na waaye mun te jaxasoo jaxasoo jaxasoo ba solution amul parce que bi problème taxawee rek ci la solution am su solution amul woon problème du am uh-huh. solution dafa am ba pare uh-huh. moo tax moo tax ñu xam ne parce que ba ñu xamee ne du nii la xam ne am na neneen nu mu doon neneen noonu nag mooy solution uh-huh. léegi nañuy bàyyi xel kenn ku nekk rek di jéem a dund li muy li muy woote lu waay di wuyoo da koy nu ko waay di waxee lu waay di wuyoo da koy niru da ngay fexeel ba fexe ba niru ko rek li nga li li nga li nga li nga doon ki nga ci politique bul ko saaga bul ko xas bul ko def ko ki nga séqal diine ji sa moroom imaam sa morom moom oustaz tak bu ñu la waxee neel moom a gën jamono ñooy jamono ñooy bu dee ci lu aju ci ziar bi ñu ngi woo ñëpp ñi ngi woo chef religieux yi seen carte dana dem ñi ngi woo officiels yi ñi nga xam ne ñu ne ci état bi ñi ngi woo population yëpp Dakaaru Kawlax Njaambur fépp bàyyiwuñu kenn nañ ko daan defee incha allah du 4 au 7 octobre incha allah. lañ koy def point de départ yooyu ñu wax itam ma moom moom moom maanaam ci Sicap ak Jëppal euh, ku fa ñëw le 4 demande renseignement daañu la ko jox te itam bu fekkee même bis yi sax dañuy dem. ku fa jëw te bëgg a dem te bu yàlla defee lee sax paas bi amul wax danañ danañ la mën a yóbbu. incha allah loolu du problème. yàlla ko yàlla mottali mbokk yi kon lii rek tey jii moo doon waxtaan wi ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di leen jox ndaje ci beneen alxames ci guddi wasalaam merci jërëjëf oustaz ñu ngi bu baax a baax. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا